bii ma ñëw ñett daf ma ñëw fi wala ñeent wala yu bari sax ndax man fii laa juddoo fii laa juddoo fi ma ganee àdduna ak suñ ak suñu jëlloo waaye fii laa yaroo Cheikh Bass Lo tamit ma fekk si ànd ak sëñ Maam Balla Mbacké moom sëñ Bachir moom sëñ Moustapha Bachir dañoo bokk lépp suñ wëlbatee fii mu nekk sama mag nekk sama nijaay ñu wëlbati fële ma nekk nijaayam wala mu nekk sama maam ndax ak mbokk dañoo jaxasoo ah di wax rek ne Kaolack awma lu ma leen faye lu ma leen fayee rek mooy laaji présidence pour ñoo mën a defar Kaolack ba mel na xam ne nii noonu la ko waa Kaolack bëggee te ñëpp wut si woon ndax ah Kaolack nekk fi yàgg ak ñoom soo nekkul nit ku am pas-pas ci li ngay def doo yàgg ak ñoom ndax borom yi xam-xam dañ fi nekk borom yi juddu nekk fi xeet yëpp nekk fi kon na fi toogee fukki at ak ñaar. ñu dénk ma chambre de commerce dénk ma poor bi dénk ma cœur de ma taxaw ñu dénk ma mairie bi kon damay jàpp ne fukki at ak ñaar yi ma nekk ak ñoom moo ma may mairie bi bu doon am politique wala xaalis wala leneen duma ko jot ndax ñu ñu ko seqloon xam ngeen ni ñu mel may wuti nag président de la république nekk tamit kàndidaa boo xam ne nii li ma jiital ci sama gis-gis mooy ànd àndum nawle ànd liggéey yokk ba yëg ko teg ko ci daara ji tool bi ak penc mi fii ma nekk résumé na sama campagne kon nag sëriñ bi maa ngi sàkk ci ñaan ak ak jàppale ah di la gërëm di la sant ah di sant njaboot gi yépp ah, fii rek bu fi taxawee wax naa ak Touba Ndorong wax naa ak waa Touba wax naa ak murit yëpp wax naa ak murit ya nekk euh, bitim réew ak yi nekk Sénégal ak yi ki yëpp ndax fii première daayira murit bi sëriñ Fallou taxawal fii la ko taxawal kon nag ñun Kaolack nañu gënal lépp gënal ñu lépp ñu jël ngeen jàppale ma ñu tegu ci réew mi jël Kaolack defar ko mu amal njariñ Sénégal gépp waxuma ne Dakar de kenn du fa demati waaye kenn rombati Kaolack di wuti Dakar feneen suñ paree nag ñu boole ko ak dëkk yi ci Sénégal yépp fexe ba waa Tamba am loolu waa saint yu am loolu waa Matam am loolu ba nga xam ne nii ni réew yu développé nga xam ne nii doo gis kenn ku naan damay jàngi naan maa ngi dem ci capital ba damay faju yi maa ngi dem ci capital ba damay wut lu ma dundee maa ngi dem ci capital ba damay wut baat maa ngi dem ci capital ba ñett yii su ko nit taxawee rek réew mi dana développé jërë ngeen jëf di ko sant bu baax nag ci turu Touba Kaolack gépp ak turu Kaolack gépp ndax li mu waxee rek jox na boppam population Kaolack jox na boppam ay dëkkandoom muy fi mu dëkk muy Touba Kaolack di kër Cheikh Mamadou Bachir waaye dafa jëfe ndigalu kilifaam itam mooy taxawu ak ànd ak képp ku dëkk Kaolack rawatina kilifa diine yi ànd naa ak ñoom ci fànn gépp fu mu fi dem fu ne nun Touba Kaolack sax danañ dem ba jàpp ne ñi ci xalaatul bu baax dañuy jàpp ne sax dafa xaw a gannaawal nun ñi nga xam ne ñoom la dëkkal Touba Kaolack ngir ndam lu mu yéene ay kilifaam ci ñiñ séqal réew mi séq ak ñoom dëkk bi mu bëgg waxtu ne ay kilifaam di am ndam loolu moo tax mu muy jëfe noonu kon sëriñ jërëjëf say kilifa sant na la nuyu sant na la sëriñ nag li mu wax leer na moom dafa wax ne buñ ma dénkee waxul buñ ma falee te damaa dégg ñu ëpp ci ñiy wax dañuy wax bu ngeen ma falee nun faluñu buur dañuy dénkaane te ñooña ma gis ne kuñ ci mas a fal ca nam koy waxe moom ña la xamut ñoo lay fal muy nun te yow bis boo faloo ña nga xam ngay fal te ñooña ñun duñ ñu xam te bu boobaa da ngay taxaw ne bu leen ma waxati defal ma bàyyi leen nun ñu xool liñ leen di defal. ci réalisation ci Sénégal bi ma gën a bëgg mooy cœur de ville fii ak bato Alioune Cité Diatta bay daw Casamance. ma fàttali leen ne bato boobu ba joolaa suuxee. président am la ay wadd am jaaxle ci ay sénégalais yu ko gere man mii la woo ma créer société def ci samay milliards ba bato bi mën a daw tey bato bi maay actionnaire privé majoritaire te ndamewuma ko fen te yaakaar naa réalisation bu ëpp loolu ci Casamance ci fukki at yi passé amu fa fii tamit cœur de ville mu nekk projet boo xam ne nii waa Kaolack xamuñ ko woon boo bi daan romb ay seng nga fi romb ma ñëw ñeme ko ay mbokk tëkkuma tëkkuwuñ ma sax dañ maa ñeewental ñu ne ma cœur de ville bii ku ko laal doo ko fekkee yàlla tombale rek ka ko tabaxoon yàlla yóbbu ko yal na ko yàlla yërëm muy Salif Ba waaye dañ ma ko ragarloo woon ba nga xamee ne nii damaa yaakaar ne sax waruma fi jàll waaye nag boo jàngee alxuraan alxuraan ne la allazina xaala lahumu naas inna naas qad jamau lakum faxsawum fasadahum iman wa qaalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsas suun yàlla moo ne ki nga xam ne nii nit ñi dañoo dajaloo ne la ragal tey nga dee mu taxaw ne yàlla laa yaakaar yàlla laa gëm wax hasbunallah nee na yàlla daf lay dimbale ba nga am ci ndam l'exemple mi ngi nii bu nit ñi di jàmbat ci jooy ci marché du kër de ville xëy na danañ jàmbat ab seeraayam ak fayam ak ñàkk waaye ku ne sawar nga fa nga nekk ci kër de ville sa mbokk fekk la fa nga am toilette boo ko dugal nga am fu mu gaare kon l'exemple marché ci Sénégal wala ci àdduna cœur de ville daf ci am solo Auchan bu ñu sañoon Kaolack waa koy moom bu ma sañoon maa koy moom waaye ndegam mi ngi am ci dëkk yëpp am nekk fi taar ñu andi ko rek yaakaar naa ne waa Kaolack bala fee Auchan am cinq ans nañ am xaalis jënd ko sax moomal ko seen bopp loolu laay rêvé man loolu laa ci loolu laa nekk bien sûr am na lu mu yàq waaye am na lu mu defar ndax bari na kuy ñëw ci Auchan bi jënd fi loo xam ne mi ngi ci cœur de ville ko fi nekk waaye bari na kuy ñëw ci Auchan bi tamit jënd fi dara dugg ci cœur de ville jëndaale fi leneen kon nag doomu aadama da ngay nangu lu yàlla lépp lu mu def rek nga ne am na lu mu def lu baax am na lu mu wàññi di gën a sàkku nag seen baat fii mënoon naa fi bañ a ñëw ndax yaakaar naa benn kart bu dul saytaane benn kart waruma ko moytu ndax li nga xam ne nii sa njariñ la yaa ngi ciy jariñu te ka ko def yaa ngi ciy jariñu yombalal la ko fitnaalu la dëgg la yaakaar naa bu soxlaa yéen seen bopp sax waxuma dara yéen a war a jóg dugg ci dëkk bi ak seeni moyens yi bopp wane ko taxaw bañ xam ne waa kër bi lii mooy résultat barki sëriñ boobu. te dinañ ko def. incha allah loolu xam naa ko defoon ngeen ci local yi te da ngeen ko defaat. dinañ ko defaat te ñu ngi lay remercier parce que li nga wax nii dañ lay ñaanal nga jot ci réew mi ndax boo jotee ci réew mi sëriñ waxuma la Kaolack waaye mais Sénégal yëpp dinañ jotu. di wax ne marché bi marché sëriñ Bassirou Mbacké la ñun ay taalib lañ ci ndigal la ñuy mhm. moo seen dégg tam benn pression ci marché bu jëm ci benn nitu état mosul am. ndax ñun bëgguñoo def dara loo xam ne sëñ bi da koy yëg ñu ci am yaraanga ci ndigal la wëy ki fi ne man bi fi nekk tamit ci ndigal sëñ bi laa fi nekk bu sëñ bi doon du ma fi yendu ko na ko xam marché bi li ñu li li ñu a defal ci marché bari na mais mosuñu dégg fenn fu ñu ko jàmbat ko fa di ma ko waxee ba saa bu nekk nag marché bi nekk néew suñu propre moyen lañ ko defee li fi njëkk ci lumière ay projecteur la man maa dem mairie ci Mariama Sarr ñaan ko mooy autorisation ñu jënd ñoon ñoo def ket jël suñu projecteur ñu boole ñoo gay mu installé ko fi li ci sam mën njaay wax moo ñu mayoon xaalis ak ay dons yu dugg ci marché moom lañu def ci marché bi amul benn bu ñu def suñu bopp lépp suñu propre moyen la moo benn pétition bu jogee ci marché bi jëm si ci maire bi yow baa nga jàpp xamu ci dara kon ñun ci ndigal la ñuy wéy ndax bëgguñoo def dara jël sëñ bi mu koy dégg ñu ci am yaraanga ndax taal bi doxee noonu ñun nag xëccuñ ci leen nit moom lu war a jot leen dana si jot ala kullaan dana jot bi nga ñëw tëntraay nga fekk ma sol lu ma tàllal kenn soxla di ko ñaan benn dërëm damay liggéey liggéey laa gëm dama mas a toog yow tam nga wax benn wax ba am importance kër ba nga toog falo bu recevoir ñun délégué yi da ne ñu xaw ma jël xaalis di ko may nit li ma xam mooy nga indi preuve maanaam indi projet moom financé nga liggéey man ci loolu laay dox sama atelier nga ne monsieur Meta damay liggéey kon doxuma ci loolu marché bi nag leen moo fiy dox dama bëgg ñun ñëpp ñu xam ne baa jàngal nu booleel nu duñ ko tëb duñ ko jël man mosoo maa gis mosoo gis sama lettre yow te doo ko gis doo ko gaaw gis lu ma soxla moom mi laay woo téléphone bu dee lu na résoudre da koy résoudre immédiatement ñun nag problème bi dañu am marché bi la man Moustapha Sow Yes Kalu bi muy politique sama jarbal bala bi mu ñëwee fii woo ñëw sama kër dama soxla wu ma la ca marché ba laa soxla ko li ñu soxla ci marché mu defal ma ko keneen noonu keneen kon ñun marché bi la ñu amuñ lu dul marché bi ku ñuy dimbale la ngi dimbale ci marché bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala man candidat Serigne Mboup ànd nawle ànd liggéey ba yëg ko daara ji tool bi penc mi maa ñëw fii ci marché Ocass ci Touba muy nag lu am solo ndax man fii laa dale bismillahi rahman rahim ba ci daara ji nga xam ne ni Serigne Bassir Bousso moo ko nekk moo ko defoon fii keroog ñëw naa fa mu nekk ah beneen aw liggéeyukaay baax na daara mën naa soppaliku liggéeyukaay ndax ñoo ànd a ah, di leen wax nag ne bi ma ñëwee fii ci Kaolack ñu jox ma chambre de commerce dañ fay liggéey ak ñi ñu àndal ba yaakaar gën a dolli ko ci ñun ñu jox ñu maire bi maire bi ñu koy jox dañoo wër ànd ak yéen ne leen programme mu 30 ans lañ mën a defar lii su ci yàlla àndee bokk koog yéen ci seen bopp tamit ngeen def seen warugar ma def sama warugar état bi jàppale ñu ci warugar yéen ñëpp xam ngeen ne dëgg la ñu bari ñi ngi wax ne. ba ma gañee damaa waroon a ñëw waaye su ma doon waraat lax na ma doon campagne danaa fi toog duma fi liggéey dara waaye bu ngeen gisee délégué ñu renouveler leen ko mënoon nañ ñëw ne délégué bii diwa ko fi tegoon nañ ko fi jële waaye ñun dañoo jàpp ne délégué bu nekkee fenn boo ñëwee da nga fay wàcc la fa nekkoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dem fatu màkka jëlewu fa la fa nekkoon da ko faa wàcc jubanti kon ñun wane nañ loolu ne par parloo amul ñaareel ba mooy ah li nga xam ne nii moom lañ diggoon Kaolack waaye bu ne tàmb nañ tàmbali nañ woor na leen ne Kaolack ku wax dëgg xam ne nam salte woon salteetu ni Kaolack nañ daan defee inondation moo daan dëkk yi gën a inondé ci Kaolack Kaolack moo daan gën a bari ay weñ yoo te ñaar yooyu ànd Kaolack ah kenn musta xalaat naan dangay dem ca mairie ba soxla boobu këyit naan da ngay jox 10 minutes taxaw ñu jox la ko soxla bi nag def nañ ci luñ ci man ci jigéen ñi ci ndaw ñi ci ñëpp ci artisan yi loolu ñu ko mën a teewu ñu bari nag lépp nag mun ta yàlla sax wala bosat laahu risqa li ibaadi la baxaw fil ardi yàlla ba mu taxawalee àdduna ak léegi ay milliards milliards at te àdduna jagagul ba léegi kon ku bëgg sa àdduna jag mooy mooy bis bu paree rek soo déggee ñu naan la yóbbu nañ la ca jag ba mooy sa boobu la sa àdduna doog di jag pare nga kon amatoo bàkkaar amatoo leneen. bàkkaar la ki nga xam ne lu ñuy tiitaroo Kaolack moo ko fi def moo ñu indil télé moo ñu indil cœur de ville moo ñu indil manège bi moo ñu def ay fonctionnaires Serigne